Mm-hmm. ak jàmm ci li gën a fës ci internet bi ñu doore ko ak putsch en Guinée Conakry maanaam coup d'état ba fa am ni ki démb ñi amal bile coup d'état di ab groupe militaire ki ko jiite di lieutenant colonel Mamadi Doumbouya nekkoon itam commandant du groupe des forces spéciales de l'armée guinéenne ma Mamadi Doumbouya ay kàddoom yu njëkk mooy suspendre kii di Alpha Condé dissoudre gouvernement bi ak lépp luy institution euh, dem beeg dikk bi nag waat na ni ki tey Double sa n'est plus mu nekkoon bàyyi si kii di Balla gay 2 ak Sa Thiès Double Less génn àdduna niki ki démb ca Kër Massar di ko jaale njabootam ak Sénégal waaye tamit bépp amateur yàlla xare ko ajana si commerce jamono ji lépp yokk ba tax jëwrin giñ dénk wàllum commerce Aminata Assome Diatta génne ab arrêté ngir commerçant yi wàññi njëg li ñoom nag àdduwuñ si bile ndogal liñ xamle mooy laata boobe arrêté fekk nañu jënd seeni produit ba noppi Alla Dieng directeur exécutif bu UNACOIS gannaaw interview bi mu def ak yéenekaay bi di l'Observateur moom nee na dinañ appliquer li ministre bi wax waaye faaw ñu écouler seeni produit ba noppi li lañ leen indiloon ci li gën a fës ci internet bi sur seen direct ba beneen yoon incha allah.